gannaaw ba nu sant suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sant Seexul Xadiim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom dëgëral ko te kattanal ko te wéral ko te defal ko mbooleem xulafaaw yi nga xam ne ñoo wutu mag ñi fu ñu fi mën a nekk réew mi ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziara del si waat nañ mbokk yi ci jotaay yooyu nga xam ne baaxoo nañ ko ànd ak yéen ngir waajale ko bis bi nga xamante ni mooy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar Euh, tey jii nag ñu am mbégte ak kontante mu réy dalal koo xamante ni suñu wëllëre la euh, di boroom xam-xam di jàngalekat di gëstukat muy Serigne Dame Fall imam incha allahu rabbi moom la ñu fas yéene àndal ñu fas yéene waxtaan nag tomb boo xam ne bu am solo la lool muy asayqul qadim ak tawhid te mooy Serigne Touba ak tawhid radiyallahu anhu kon loolu la ñu fas yéene waxtaan xamna ba lañuy sor rek dañuy jëkënte ak li nga xamanteni moy waxtu yi jox ko kàddu gi mu nuyoo inshallah so rafé ñu la di li nga xamanteni moy waxtan bi wi alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala imaami almuwaxidin wa qudwati almujaddidin muhammadin nabi alamin wa ala alihi wa sahbihi alxaamilin min baadihi liwaau tawxid alsaa'irin ala nahji alfarid asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Mahmoudan ñoo ngi lay dellu am nuyoo di la ziar bu baax baax di ziar mboolem ñi nga xam ne ñoom lay àndal jamono ji ñuy seetaan émission bi le di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha sunu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi lool te may ko wér ak mboolem kilifa yi diine yëpp di ñaan sëriñ Modou Mbène sunu borom yàggal ko fi lool sëriñ Cheikh Jëmb sunu borom dool ay leeram taas ñu ci barkeem di ñaanal mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ngi waaj yëpp ngir fas yéene màggal si suñu borom subhanahu wa taala defal leen yoonu jàmm ite itam ñi nekk ci dëkk bi itam suñu borom defal leen tawfiix bañ mën a teeru gan yi tere leen ci barke sëriñ bi bisimilah. sëriñ daam ci nuyu bu am solo boobu nga xamante ni nuyu ko te muy nuyoo boo xamante ni bu jot bu jotal la macha allah kon xam naa dañuy njëkkante waxtu bi rek li ñu fas yéene waxtaanee mooy Cheikhul Khadim ak tawhid bala ñu àgg ci loolu nag bëgg nañoo xam. lan mooy tawxiit ci boppam tawxiit mooy lan ba ki nga xamante ne nii moo ñuy seetaan su déggee baat boobu nga xamante ni mooy baatu tawxiit dina xam lan mooy tawxiit dëgg-dëgg. sëñ Mahmoudan tawxiit suñ ko waxee maanaam ci luxa rek baat bi mooy bàyyi ko ci baatu waxada ngi firi wéetal na waxada yu waxidu tawxidan kon masdar mi mooy tawxid ci gàttal rek mooy jël dara def ko muy lenn muy lu wéet loolu nag mu munta nekk lu la ne dangaa am loo dàq am loo saxal te ñaar yooyu moom lañ ci gis ci baatu laa ilaha illallah ndax saa yoo ne laa ilaha rek danga dàq soo ne illallah nag dangaa def li ñuy wax isbaat danga saxal loolu nag mooy amul benn boor benn buur bu ñuy jàmm walla benn yàlla bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul suñu borom subhanahu kon boo seetloo dangaa dàq saxal li nga dàq mooy amul benn yàlla bu ñuy jaamu ci dëgg li nga saxal mooy kuddul yàlla yàlla rek lañuy ñuy bu fekkee nag ci fi istilaax ci ni ñu koy jàngale moom mooy wéetal suñu borom subhaanahu wa taala ci melokaanam yi nga xam ne da koo jagoo ci rububiya ak uluhiya ak turam yi ak melam yi nga xam ne moom suñu borom subhaanahu wa taala képp moo ko jagoo waaye nag loolu borom xam-xam yi dañ cee topp. saxa ci ba séddale tawxid ci ñetti xaaj ñetti xaaj benn bi dañuy wax tawxidu ya loolu nag mooy xam boroom xam-xam ni ñu xam xamlee mooy wéetal sunu borom subhanahu wa taala ci ay jëfam nga xam ne dañoo war fas ne sunu borom subhanahu wa taala ku wéet la ci bind gi bind mbindeef yi waaye ku wéet la ci nguuram gi waaye ku wéet la ci dox doxal gi muy doxal mbir yi nga xam ne doxal mbir yi moom kenn fekk ko ci moom sunu borom subhanahu wa moo koy def moo tax mu wax ci alquran ne الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل wakil moom suñu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo bind lépp te itam lépp ci moom lay dellu waaye itam ak li ñuy wax tawxiidul uluhiya te mooy wéeta suñu borom subhanahu wa taala jaam bi jëf yi jëf yi mu jëf mu wéeta ci suñu borom subhanahu wa taala noo xam ne suñu borom subhanahu wa كو mooy ki nga ak nga xamne ne moy ak ikhlas selal deug deug alquran wax سنبو سبحانه وتعالى وحنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تايدم بو ديلا سور بقرة دا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يين نيت ني جامو سنبو سبحانه وتعالى ميغا خاني موني بن ني لي في جيتو ايتام ndax la ngir ragal ko kon tawhid tawhid uluhiyya sun waxe moy ñu jël suñu jëf jëmale ko suñu borom subhanahu wa taala te bañ caa bokkaale dara ñetteelu xaaj ba mooy wéetal suñu borom subhanahu wa taala ci turam yi ak melokaan yi nga xam ne moom ci jëmmam moo ko saxalal boppam wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ko te itam melokaan yooyu nag buñ koy saxal ci suñu borom subhanahu mooy melokaan yi wala yi nga xam yàlla moo ko saxal ci boppam ñun buñ ci të wi lenn mooy di ko firee ci suñu njortu bopp wala ñu ci taxrif lenn fekk loxo nii lay firee ñu ko firee neneen wala ñu ci tamsil leen melni kuy misal ci sun borom subhanahu wa taala ci ay jëmoon yi du mel non wala ñu ko def li ñu wax takayuf wala ñu koy ta'til melni koy lotlo sun borom subhanahu wa taala ci dara waye waaye melokaan yooyu ak tur yooyu naan xol naka sun borom subhanahu wa taala saxale ci bopam ñu saxale ko non wala liko yentu bi sallallahu alayhi wasallam saxale motax mom sun borom subhanahu wa taala wax ci alquran ne laysa ka misli shay'un wa huwa samiul basir sun borom subhanahu wa taala dara dara melul ni mom te moy ki nga xamne moy aji dégg ji moo aji gis yi moom tawxiid nag ci gàtt rek xaaj bii ñu ko xaaj suñ ko bëggee xam dañuy delluwaat ci téere tawxiid yi nga xam ne dëgg-dëgg tawxiid mooy li nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala yónni yonenteem yi ngir ñu xamal ko nit ñi ngir lan génne leen ci ak lëndëm jëme leen ci leer waaye jëlee leen ci jaamu seen mu jaam jëme leen ci jaamu bor borom borom jaam yi nit ki warul jaamu moroomu jaamam waaye ki mu war a jaamu mooy borom jaam ñi loola tax suñu borom subhanahu wa taala wax ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuuxa ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yónni wu mukk ab yonente ci lu la jiitu lu dul dañ ko wax yu xamal ko na wax aw nitam ne nan ma jaamu man amul benn buur bu man ko rek nañ ma jaamu bokk na ci principe yi nga xam ne waa ahlu na dañ ko gëm te ñun war ñu war koo gëm ci tawxiid li ñuy war a njëkk fas rek mooy yàlla moom kenn la ca jëmm ja ak melo ya ni nga xam ne noonu la ko Cheikhul Khadim jàngalee boo delloo ci tiiram bi ñu tudd tudd tazawudu zixaar wala shubaan wala mawaabi xudus wala yi demee noonu waaye bi war a gëm te fas ko mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom kenn la ci meloom ya ak jëfam ya ba itam ci yi nga xam ne mabaadi yi yi nga xam ne waa ahlu sunna ko jàpp mooy saxal melo yàlla yi nga xam ne yu sax ci jëmmam ya la li ñu waxoon léegi ñu bañ koo tamsil wala ñu koy tashbih yooyu itam muy takk yif yooyu lu nit ki war a saxal la diggante moo boromam subhanahu wa taala waaye te wépp melokaan woo xamante melo wu manqué la ñu dàq wa jëmee ko ci suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne suñu borom moom melo yu mat sëkk la meloo waaye luy nuru melokaan wu manqué moom suñu borom subhanahu wa taala meloo ko waaye itam bokk na ci li nga xam ne dañu ko war a gëm itam xam ne alquran itam qadimun gayru xaadis alquran lu fi jiitu la waaye nekkul sos lii tax nu mën a gëm ne nag lu fi jiitu la mooy waxi suñu borom la te ginnaaw nag suñu borom subhanahu wa taala dafay jiitu kon ay waxam dafay jiitu moo tax sëriñ bi wax ci boo demee ci ci xas téere bi tudd faydul xaniyil muxni mu ne wa anna alquran allazi yudril xuyub kalaamu haadin qad yusaxsiul uyub laysa bi maxluuqin wa laysa bi sifa xalqin wa jaadali bi bil mutasifa mu ne war nañu gëm ne alquran mi nga xam ne ci la ñu xamee kumpa yi nañ xam ne mooy waxi aji gindee ji mooy waxi suñu borom subhanahu wa taala moom alquran moom nag du mbindeef waaye itam yorul melow mbindeef waaw kon dañuy gëm ne alquran moom melow suñu borom la amee waaye nekk dafi dafa nekk loo xam ne lu fi jiitu la kon nag ta dëgg-dëggi tawxiid daal ci ni ko buñ ko bëggoon a xam ci sariya lañ ko aw waaye du ceegi ne loo xam te ni li ñu jël ci am xel la rek kon loolu mooy li nga xam ne doon ko def ab laytaay ngir xam ne lan mooy tawxiid ci suñ kem kàttan. macha allah rabbi baarakallahu fiik euh, sëñ daam ci ni nga xamante ne noonu nga ñu xamale lan mooy tawxiid te lan mooy wéetal yàlla te tawxiid itam muy benn xaaj ci ñetti xaaj yi diine yi ndax euh, diine xam nañ ñetti xaaj la muy iman islaam ihsan al iman bi tawxiid al islam bil fiq al bi tasawuf kon tawhid moom nga xamanteni ni moom lañ doon waxtaanee te nga leeralal ñu ko mu nekk benn xaaj ci xaaj yi nga xamanteni ni mooy xaaji diine waaye mu am itam ay ponk yoo xamanteni ne da ko làmboo muy juróom benn ponk al iman billah al iman bil malaika al iman bil kutubi samawiya al iman bi rusuli al iman bil qadari al iman bi yawmil axiri muy juróom benn ponk yooyu nga xamanteni ni mooy juróom benn ponk iman kon euh, am na solo lool muy tawhid su ko defee nag sayxul euh, xadim nafaanallahu bi barakaati ismihi ak euh, tawhid ndax moom dañu gis ni ku loon suñu borom subhanahu wa taala la waaye ku bàyyi woon xel suñu borom la kon bu ñu ñëwee nag ci sayxul xadim ak tawhid ni nga xamante ne noonu la ko jàngale waaye buñ neppee ci loolu ci li ñuy dugg mooy moom ci boppam ni nga xamante ne noonu la ko dunde kon suñu jiwaa ni nga xamante ne noonu la jàngale li nga xamante ne mooy tawhid jërëjëf suñu Mahmoudan Cheikhul Xadim moom ni mu jàngalee tawxiid njàngaleen wu leer la dañuy topp al imaamu al ashari yi boo demee ci téere bii nga xam ne waxoon naa ko léegi muy tasawudu sixaar nga xam ne noonu nga waxee bi mu waxee ni gëm yàlla gëm malaayka yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm bis mujj gëm ab dogal benn bu ci ne da ko indilaat euh, jàngalaat ko jàngale boppam nga xam ne la ci njëkk rek mooy dangay gëm ne yàlla moom ko am la tëmbaliwul fenn ku fi jiitu la ku fi des la ku wuuteeg mbindeef la ku doy la ci boppam te kenn la ba juróom benn melo yooyu mat waaye itam nga teg ci juróom melo yooyu ne ku am kàttan la ku am xam la kuy dégg la kuy gis la mm, kuy dund la ilaa aaxir ba juróom ñaari melo yooyu waaye melo yooyu ci jëmm lay nekk jëmm ji nag faw nga am na ko wooye ndax boo ne ko am kàtt boo ne kàttan jëmm jëm nekk mën nga ko wooye aji àttan boo ne ko am coobare la jëm jëm nek nga ne aji am ciobre la ila aaxiri ba fukki mel yi ak ñent mat nga boole ko jëm benn mel yi nga jëk lim léegi muy ñaar fukki mel yi nga xamne Cheikhul khadim dafa wax ni lu war la ci jëmmi sun borom subhanahu wa taala nga xamne al wahdaniya mom la ñuy wax an nafsiya yi si des di juróom ye ci dess as salbiya ak al maani ak maanawiya muy nek ñaar fukki mel yi nga xamne yu war la ci digënde sun borom subhanahu wa taala bi jambi gëm ne melukaan yi melo yu mat sëkk la dañ ko war gëm ci sun diggante ak suñu borom subhanahu wa taala mom seexul khadim nak sun borom subhanahu wa taala man nañu wax ne moko mo moo ak tawhid mom da feñ rek taam li wéetal suñu borom subhanahu wa taala niko ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di waxee ne mom serigne bi biñ ko dalé gis ba niñ ko noppé gis lépp ci mom rek la nek motax mom ci jëmmam mo xamlé bopam nikul ku ñu xam way amna lu mu nu ci bopam ndax dafa wax ne man dhannani ghayra abdillahi wa khadim an nabii fa sahih képp koo xam ne yaa koo xam ne yaa ngi may njorte lenn lenn kudul jaamu bu yàlla ak lu kudul liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga xam ne yow moo may njort loolu ci man da kon moom sëriñ bi mooy abdullahi wa xadimu rasulihi waaw jaamu yàlla la boo xamante ni daa sax dàkk ci jaamu ko waaye sax dàkk ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ginnaaw jaamu yàlla la di liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa kon moom lan lay def ci kaw suuf lan lay fi liggéey si mel na bu doon ko sañ laaj dañ koo laaj mu wax ne lil Moustapha nawaytuma yu jaddidu sunnatul xarra wa inni ahmadu maanaam liggéey bi nga xam ne moom la war a def ci kaw suuf mooy yeesalaat sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fan la ko awee dafa ñëw woote ci tawxid ad'u ila bi tawxidi wa ma raaytu minhu min mahidi mu maa ngi woo jaam ñëpp jëm nañ ci suñu borom subhanahu ñu wéetal ko waaye masiyi fu maa gis mukk may jeng jëm ci leneen bu ko tawxid waaw nga xam ne moom dafa jël tànkam تكوتي صراط المستقيم تصراط المستقيم بوبنا مو يويتال يالا سنبول سبحانه وتعالى واي وخاني وجدد التوحيد والفروع مع التصوف حوا بروع مو وخاني لما فسيين يسلا التوحيد اك بانقاس مو يفق اك تصوف نا خامني لم وخون دا يسلا سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مو لي yooyu képp ci la sëriñ bi nekkoon nga xam ne keneen ku wax ne yaa euh, moo tudd sëriñ bi di nekk ci leneen kooku moom moo ci nekk waaye sëriñ bi moom la yoon ak jaam ñi ba noppi ndax la mu waxoon ne wax naa ngeen dégg ma jëf ngeen gis ma bin bàyyi fi loolu moom lu leer naññi la ku delluwaat ci téeram da nga gis ci ci li mu nekkoon waaye itam moom sëriñ bi dafa waxoon ne maqaama mi gën a kawe ca sunu borom subhanahu wa taala ci jamono ji mooy fexe ba tawxiid dëkk ci xolub jaam bi dëkk ci dëkk ci bi mooy daraja ji gën a màgg ci jamono jile daa wax ne dëgg day yëkkatiku ci yëkkatiku aji yëkkatee ji muy suñu borom subhanahu wa taala mooy yëkkati dëgg muy yëkkatiku ba àgg ci gën jaa kawe ay daraja waaye itam neen ak neen moom day suufee di suufee ci suufee gi nga xam ne moom la ko suñu borom mi mën a suufeel dara moo koy suufeel ba àgg ca fa gën a xóot ca sawara moo tax boo xoolee eh, ñi njëkk a ànd ak eh, sëriñ bi ni ko sëriñ Mahmoud ñang eh, waxee suñ Muuru Maamu ñang waxee moo ne mu ne sëriñ bi ci farloom ak ci xóotu xóotu xelam ak réyu xal baaxam ci la génnee mboolem ñi nga xam ne ñoo ko toppoon ñëpp ci lëndëm jëme leen ci leer waaye jëlee leen ci lan lëndëmaayu weddi ak caay-caay ak mooy yàlla jëme leen ci leeru gëm yàlla ak jëfe li leen yàlla sant te di ko rafetal waaw mu ne an yuxrija jamia atbaahi al muxlisin min al zulumaati ila an nuur wa min zulumaati al kufri wal fusuuqi wal isaan ila nuuril imaani wal islaami wal ihsaan waaye tamit génne leen ci lëndëmu gu réer aku ñàkk aku tàyyeel jëme leen ci fan jëme leen ci leeru xam-xam aku doyu doylu ak nangoo jëf nga xam ne sëriñ bi day mel ne bu yemoon ak téel bi ci lii rek wàcc na fexe ba génn leen ci ak réer fexe ba génn leen ci ñàkk fexe li ba génn leen ci tàyyeel ndax sëriñ bi liggéey da ko ci xidma da ko boole woon ci mbir mi waaw léegi la xañ mel na ak yëfu say xaw am léegi-léegi waaye bokk na ci moom ponk yoonu muru ma mën a liggéey bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati kon mu fexe ba ak taayal jóge ci moom ndax li sëñ bi waxoon rek mooy di képp ku la mën a sañal la te boo fekkee bëgg nag kenn bañ laa mën a faaw da ngay nangoo liggéey waaye mu fexe bañ am xam-xam te loolu itam da ko doonoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax bi mu dafa fexe ba saxaaba am xam waaye yemuñu ci xam-xam bi di jëfe seen xam-xam ba waaye di eh, doon ñu dëppoo boo demee ci naxajul xadaa noo ko fi sëñ bi waxee woon waaye ñu nekkoon ñu xam ñu doylu daan jëfe seen xam-xam waaye ne mu génne leen tamit ci lënd mu sikki sàkka akuk neen akuk déngi-déngi jëme leen ci leeru dëgg ak wóolu ak di engagé mooy mbir mu ne rek ñu def ci iqdaam def ko fa sansa nga xam ne lépp li sikki sàkk moom sëriñ da ko génne woon ca ñoom lépp luy ak neen da ko génne ci ñoom lépp loo xam day ak déng-déng di ko euh, seen diggante ak sa borom sëriñ bi da ko génn ci ñoom waaye def ci ñoom ak wóolu seen diggante ak sa borom waaye def ci ñoom ak sax dëgg ak di engagé fu ñu toll boo xoolee diir bi nga xam ne daf ko nekk ci géej gi di jihaat ak noon yi lim leen woo lépp ci tawxiid wéetal yàlla la te boo xoolee itam lim doon xeex ak ñoom du lenn lu dul ne jees ji ma yoroon ngir di xeex ak ñoom mooy wéetal suñu borom subhanahu wa taala sayfi lladi yafri tula man sallasu توحيده فهو الاله الواحد نين جيس ديغا خا مو لا يرون دي جي دوق دي جي دغ دوق ني خا ندي وخنا يالا نيت لا نينت لا ني دول لين دول توحيد ويتال يالا سن بر سبحانه وتعالى موتا مو خني لقد نظم لقد نظمت لدى من ثلثه صمدا من قل هو الله ما شرواه لم يبني مو ني قل هو الله احد وينا تي ca jamono yi nga xam ne damaa nekk ca yi nga xam ne dañ di wax naa ne yàlla ñett laag yu demee noonu way naa ci loo xam te ni am kema moom du feeñ ba mukk te boo gisee sëriñ bi ni mu yéetale woon yàlla dafa mel ne euh, suñ delloo ci ginnaaw la sëñ Mouhamadou Mountakha yàlla ko su borom yàgg loolu tamay ko wér booy seetlu da nga gis am na fu mu doo wax sëñ Alhaaji Baara ak sii sëñ Sidi Moxtaara naa leen si sama diggante yéen sama sama bakkan bi sax wóoruwuma ko ci waaye sëñ bi dafa mel diggante moom borom wóoruwu ci kenn ba boo demee ci njëlbeen Mawaahibul Quddus داي غيسني بيمي سيرا لو بروم نيكو يو رك يا كين اللهم اني اشهدك واسر حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله يا سمبرون ما نغلي سيرا لو ني دي سيرا لو نيغا خا نيو يانو عرش دي سيرا لو سمبول ملائكي اك سمبول مبيندي فيب ما نغلي ني سيرا لو ني يو كيب يو يا الله امول بن بربر يا الله واي سيرنا محمد تم سبحانه وتعالى موكو يوني بارك الله فيك جير جير سيرن دام macha allah ci ni nga xamante ne noonu nga ñu indilee sëriñ bi ak li nga xamante ni mooy tawxid ni nga xamante ne noonu la ko jàngale waaye ni nga xamante ne noonu la ko daan jëfe waaye ñi nga xamante ñoom la yoroon muy mag ñi itam ni mu leen yaree woon ci tawxid ak ni mu leen génne woon ci li nga xamante ni mooy ak ñàkk ak la ak ci aju yëpp eh, jëmaleen ci leer gi nga xamante ni mooy leeru wéetal yàlla waaye ak li nga xamante ni mooy jëfe muy lu am solo macha allah eh, mu mel ni Seexul eh, Xadim ñi nga xamante ni ñooy nasaraan yi nga xamante ni ñoo ko fi jëlee woon yóbbu ko ba loolu moo waral euh, bis bi nga xamante ne moo nekk suñu kanam ñu di ko fàttaliku am na xasida goo xam ni waqante woon na ko ak ñoom euh, def naa sax mooy gi ma jàkkaar lool mooy inni u xawtibu nasara tura day mel ni kon xam naa li ñu dese sax ci waxtu bu bariwul waaye dañ lay bàyyi rek incha allah nga indi xasida googu nga xamante ni moom la sëriñ bi waqante woon ak ñi nga xamante ni ñooy nasaraan yi ci euh, xamal leen mom li nga xamanteni ni la doon te moy abdullahi wa qadim rasuli muy jam bo xamne day jamu yalla waye di ligeyante bi sallallahu alayhi wasallam sallam nga xam ne Sëñ mom euh suñ bëggee xam mom moy kan euh, dañu delluwaat ci am bindam minna mom nak weesuwul lim mu wax ne abdullahi wa qadim rasulihi muy mom jam la bo xamanteni day jamu yalla waye di ligeyante bi sallallahu alayhi wa sallam di am solo xamna day melni li ñu dese ci waxtu bariwul waye ñu andage ci xasida googu incha allah doog a li nga xamanteni mo bi jaajëf sëñ Mahmoudan ni nga ko waxee loolu ma la wax rek mooy bi mu nekkee ci nasaraan si sax nasaraan si nga xam ne ñoo ko génne woon ci dogalub suñu borom ñoom ci seen jëmm sax da leen di wax naa bu ëllëgee yemul xiyaam ba nit ñëpp teew na ngeen seere ne man kat jaamu yàlla boo xam ne bu doon liggéeyal kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam la loolu boo demee ci xasida ak ini uxaatibu nasara turaa di nga fa fekk waaye li ci gën a yéeme mooy tayaqanu bi annani li rasulillahi na ngeen wóoru jaamu yàlla képp képp la waaye bi liggéeyal katu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaa ne rafaatu tawxiidi li rabbil alamin wa quttu amdaahi li ahmad al amin nga xam ne sëriñ bi booy seetlu dëgg-dëgg mbindam lii muy bëgg bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu koy teg ak fa muy teg boromam du leen jaawli bu mukk waaw maanaam li muy bëgg bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam du juum mukk mukk ba di ko jox bërëb ba mu war a teg yàlla suñu borom subhanahu wa taala waye fi mi tek yonde bi ak fami tek sun borom kenn ku ne beurep ba nga yellool mo lay tek ci kem katanam rafaatu tawhidi li rabbil alamin sama tawhid ma ko yekati jema ko ci ñeel borom minde fi moy kan moy sun borom subhanahu wa taala waye tag yi nga xamne moy am daax nak di ci def ko muy obligé sama digënté yonde bi ma ko jëmee ci yonde bi sallallahu alayhi wasallam wa quttu am daaxi li ahmad al amin waye motax tax mu wéete gi mi wete sun borom subhanahu wa taala motax mo wax ne moom suñu borom de له البرايا له افعال وله جل الوجود الذي قد زانه zaanahu ناس nee na suñu moom moom mbindeef yi mbindeef yëpp ñeel na ko seen jëf itam ñeel na ko mooy ki nga xam ne mooy ki fi nekk koo xamante ni ku fi jiitu la te ku fi des la ba faw waaye képp koo xam ne yaa ngi askan suñu borom subhanahu wa taala naan ñaar laa ñett laa yu demee noonu na nga xam ne kookee kat ndëggum la dafa tarxiis kon ñi nga xam ne dañ doo wax lu mel noonu sëriñ bi ne leen kon da ngeen gaaw tuub tuub lu tuub leen ci lu gaaw jëm jëm ci suñu borom subhanahu wa bala ngeen di faatu ak rëcc du leen ci fekk tuuboo lahu yaa zawi tasliisi fi ajalin wa saariu qabla mawtin baadahu nadamu kon loolu am njàngale mu réy la moo ne si mi da ko def ci tawxid te tawxid bi dafa wax ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy ngën ji ndaxañteef ndaxañteef loo xam ne nit ki dina ko bàmmeeram dina ko jariñoo ca bisu pang ba ndax nee bépp xam boo am te amoo tawxid nee na xam boobu doyut waaye soo xasee am tawxid te amoo beneen tawxid dina doy wala si yooyu kon loolu itam euh, war naa tax ñu gën a góorgóorlu bu baax baax ci sàkku xam-xamu tawxid waaye boo gisee suñu borom subhanahu wa mu koy jàng boo delloo ci mawabil qudus mu wax ne ilam habaka llahu rusdan wasaa kaana ilahuna wala shay'a maha wa laysa min shayin wala fiihi wala fii taxtihi wala alayhi musdala mu ne suñu borom subhanahu wa dara anta moom te dukkewu ci dara nekkul ci biir dara nekkul ci ron dara te dara itam nekkul ci kawam kon kooku kenn kenn kenn xamul suñu borom subhanahu wa taala waaye la yent bi alayhi salaam waxoon rek bu ñu ko bëggee xam dëgg-dëgg mooy suñu borom ci mbindaafanam waaye bu ñu xalaat ci dëgg-dëgg yi jëmmam ji moo tax suñ bi wax ne fa laysa maxluuqan moom suñu borom du ku ñu bind wala maxsuuran te du ku ñu takk mooy ko xam ne dafa ma nekk ci benn bërëb wala laysa maxmuulan nekk loo xam ne dañ ko yenn kon mooy nekk ci rondar wala maqhuura maanaam gëdd wuñ ko nutuñu ko waaw ما در درنكو واي در تيمو كيتا موم سن بر سبحانه وتعالى موتاخ آه، دك دك توحيد كوك ام دا فا نيك لو نيه لو خانتيني راوتي نك بوك اوي سي نجاغل سيرن بي ناخ آه، دا فا ام امام ابو الحسن الاشعري دا فا وخون سن بر سبحانه وتعالى لا يسالو عنه تعالى بكيفه ناخ لا مثيل له ولا بما لانه لا جنس له wala bi mata li annahu la zamana lahu wala bi ayna li annahu la makaana lahu nee suñu borom subhanahu wa taala naka la nekkee ci nangam ndax amul lenn luñ ko mën a misaalee bu wala bi ma ci lan ndax amul aw xeet bay nekk ci benn mbir waaye wala bi mata maanaam ci ci ndax amul jamono bañ koy tënk kañ la ñëw nangam nangam waaye wala bi ay na ana fu mu nekk fu mu jógee ndax amul benn bërëb moo tax suñu borom subhanahu wa li sëñ bi wax rek is la lahu mislun wala zamaanu wala lahu jinsu wala makaanu moo tax euh, nañ gën a sellalaat suñu diggante suñu pas-pas suñu diggante ak suñu borom rawatina nag ki nga xam ne dafa wax ne ab téere bi sëriñ bi la ñu delluwaat xoolaat bu baax a baax sëriñ bi ni mu woowee woon jaam yi jëme leen ci ñu fas yéene caa nekk ndax wax la ma waxoon ad'u ilallahi bi tawxid kon ñu waat jëm ci loolu bu baax a baax sëriñ Mahmoud. macha allah euh, sëñ Dame euh, waxtaan am solo lool te itam leer na. te wane nga itam bu baax a baax sëriñ bi ni nga xamante ne noonu la jàngale li nga xamante ne mooy tawxiid ak ni nga xamante ne noonu la ko leer la macha allah ak ni ko dundee waaye ni ci yare ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ay ñoñam loolu dinañ ko dégg ci waxtaan bi am na solo loolu macha allah xam day mel ni suñu technicien suñu technicien bi ñuy jàkkaar day wax ni waxtu dafa jëm ci xoccu xam naa kon daal di bàyyi kàddu gi rek muy kàddu yu mujj yoo xamante moom ngay tàggatoo incha allah xëy na waxtu wee xaw a gàtt waaye sëriñ bi moom li mu jàngale ci wàllu tawxiid lu yaatu lool la li ci am solo rek mooy nu fas yéene ko xam te jëfe ko ndax xam-xam bi moom li ci am solo rek mooy jëfe gi kon nag yàlla ñu suñu borom subhanahu wa taala dimbali eh, ba xam bi moom mu néew mu na doon luy jëfe tey liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy def itam képp koo dégg yàlla na suñu borom subhanahu wa taala dogal mu doon lu lay jariñ te jariñu ñu ñëpp yàlla na ci ay ngëneel jóge te lépp tam ñu defaat ko addi sëriñ bi delluwaat rek di ñaanalaat sëñ moo mu Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool may ko wér te itam defal ñu màggalu jàmm barke Seexu Xadim di la ñaan itam suñu borom subhanahu wa taala gën laa taxaw gën laa dimbali ndax ba suñu borom dogalee suñu xamanteeg léegi xaw naa yàgg te it ci diine ji ak ci liggéey sëriñ rek ci lañ la xam yàlla na suñu borom subhanahu wa taala barke lépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ daam jërëjëf macha allah rabbi ci ni nga tëjee yow ngi lay ñaanal ba suñu borom gën la sàmm te wéral la te ci say kam macha allah ndax jàngale mi nga xamante ni moom ngay jàngale sëriñ bi wér na leer na te itam tegale na teg na ci li nga xamante ni mooy sëriñ bi te loolu rek mooy li nga xamante ni moo am solo macha allah kon yàlla suñu borom barkeel la eh, mbokk yi nga xamante ni ñoo doon bàyyi xel suñ télévision bi nga xamante ni mooy Mouride TV kon li benn jotaay la ci jotaay yi nga xamante ni fas yéen nañ ko ànd ak yéen ci eh, bis bi nga xamante ni moo nekk suñu kanam mooy bisu Seexul Xadim bi